alors assalamu alaikum, beaucoup d'internautes qui viennent suivre cette euh, vision TV euh, ak programme yi nga xam ni programme yu intéressant yi nga chaque jour viennent à travers cette plateforme Je ngi leen di jaajëfal tey dama ñëw pour waxtaan ak yéen ci benn sujet qui est l'éducation éducation financière éducation financière c'est un la lan mooy éducation financière moom mooy. manam yarin wala yar ci walu khalis li jëm ci wàllu xaalis parce que khalis dafa nek lu am solo ci suñu aduna suñu jamono tay ci soit ngay borom kër soit ngay jeune bo xamné ni da ngay ut liggéey wala jeune bo xamné ni am nga liggéey wala nga nek chef de famille tout simplement wala sax nga nek entrepreneur am ay projet bu ko réaliser souvent da ngay soxla khalis khalis bobu nonu kon faaw nga xam nan ngay jëflanteeg moom xaalis boobu lan la lay jëriñ ak noo koy utiliser donc boo demee ci yeneen réew yi comme yeneen réewu nasaraan seeg yeneen réew yu am doole ci àdduna bi ci seen école ci seen daara yi dañ fay jàngale xaalis nan la ko nit di yoree nan lay jëflanteeg moom nooy def ba gën a suqaliku nooy def ba gën a gën a gën en tout cas gën a mun a yor sa bopp gën a mënal sa bopp

xamuñ nan la ñuy jëflanteeg suñu xaalis fan la ñu war a dugal suñu xaalis lan moo am solo ak lan moo amul solo loo xam ne nii xëy na di nga am tey benn euh, cinq cent mille dugal ko ci léegi suba ginnaaw suba nga dem utiwaat te fi nga ko dugal du indi lu bëri ci sa dundin du changer lu bari ci sa dundin alors d'abord dañuy xam xaalis fan la jóge xaalis mu ngi jóge ci euh, maanaam biais yi ñuy jëflanteel ci nit ku amoon qui ay pièces ou or parce que or moom moo moom à la base ci loolu la xaalis coup, et que par exemple qui qui am or amne lu mu bëgg jënd mais au lieu que mu joxe or bi directement day dem garantir or bi fenn ñu jox ko kayit buy wane ne ki amna alal kon bu ñëwee jënd ci si man dara mun na ma jox kayit boobu nonu moy firndel ne amna alal parce que euh, quantité or bi bokkul la xaalis bi ni mu toll or benn quantité la boo xam ne nii par exemple ni mu toll rek la toll alors que xaalis mun nañ di ci defal lu bëree bëri donc du coup ci la billet juddoo maanaam billet wu xaalis léegi ñu dem ba aujourd'hui maanaam ci àdduna bi lépp looy def billet boobu noonu da nga koy jëfandikoo loolu c'est important ñu noter donc que xaalis valeur am des na par rapport ak leneen te pour pour pour nga gën a comprendre loolu tey kuñ joxoon ci yéen saaku xaalis

jigen ñi ñu baal ma dinaa xaw attaquer un peu parce que ñom ñoo gën mëna dépenser xaliss ba taxna même ñi nga xamné ni ci walu commercial la ñuy yëngu ay communicateur lañ buñuy ñuy communiquer publicité yeeg yépp lu ñuy def lu ci bëri ci jigen ñi lañ koy jëmale parce que xam nañ ne même xaliss bi goor ñi di gagner ci jigen ñi lay mujjee te jigéen ñooñu nonu dañuy dépenser té dañ leen di gën pousser ñuy dépenser boo jëlé exemple ku nekk si ñun par exemple chaque mois wala chaque semaine wala chaque deux semaines mu jënd ay yére yu bess bo xolé ku mel Mike Zuckerberg wala euh, Bill Gates ñu ëpp alal ci aduna bi Mike ben t-shirt lañ koy gisee souvent ak benn capuchon Bill Gates ay dal ki basket mom lay sol la plupart du temps yàgg na da ngay am problème sax pour euh, xamé yére bi mu soloon démb ak bi mu sol tay est-ce que ñun li dépenser yépp ci ay yéré est-ce que soxla nañ ko ñaata ci ñun ñoo yor ay yéré yoo xam ne nii ñu ngi seen kër jënd nañ ko soluñ ko benn yoon ñaari yoon denc ko est-ce que soxla nañ ko te dañuy fàtte ne kattan bi ñuy am tey ba tax ñuy am xaalis di ko dépenser ci loolu pour wone lu nekkul si ñun en réalité parce que lan la ñuy def li ñuy wone noonu yëpp yére yu rafet yeeg dàll yu rafet yeeg souvent dañ koy wone pour nit ñi teg ñu fenn.

dootoo ko mën te àdduna bi boo moytuwul day gën di métti est ce que ñun dañu war a continuer comme suñu maam yi ni ñu doon def mooy di liggéey ba say doom ñëw nga dem noppalu ñu awul la di sonnaat di gérer famille bi wala ñun dañoo war a préparer avenir suñuy doom et et lu weesu loolu sax duñ ko yemale seulement ci avenir suñuy doom est ce que waruñoo mun a préparer avenir réew mi

donc bo wouré nga farlu yow ci sa bop ni ngay investir nga jox ko gëdd bi nga ko wara jox di nga gis ko xamné ni boko jappalé di ci am li nga nga investir 100 millions 100 millions yi nonu chaque fin du mois mu lay dougalal 15 000 rek 15 000 bo défé 1 an 100 millions yi dina la jural 10 mois rek boko défé dina la jural 150 000 donc dina dépasser légui imaginer ci durée bi nga jël ko ci ci ci lu yag 5 ans

ba pare continuer di ñafewaat di xif est-ce que lolu xam-xam la dama joxe benn exemple kenn ku euh Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki benn borom ala la bu dund États-Unis ci conseil Donald Trump yi la bokkoon Robert Kiyosaki bo lire ay livre de de euh, Père riche Père pauvre par exemple da ngay gis muy fataliku bi muy nekk jeune à un moment donné mu am jabar mais moom mu gëmoon ne dafa war a investir parce que dafa war a am alal parce que alal boobu mooy tax mu noppalu alal boobu mooy tax tey mu mun a am jotu voyage ñu bëri ñoo nekk tey ci ci ci Dakar wala ci ci ci ci ci réewu taax yi dëkk ci àll ba mais mënuñoo dem sax ci àll ba def fa une semaine noppalu gis seeni mbokk waxtaan ak kii dugg ci àll bi mënuñu ko parce que dépense quotidienne moo leen topp te dépense boobu noonu li ko waral lu bëri mu sonal leen mooy fi ñu teg seeni bët seen doole yemu fa ba pare bu ñu sóoraale dañuy liggéey tay lekk tay liggéey tay lekk tay etc donc mom mu ne dafa bëgg am alal tay ji bokk na ci ñu gëna am alal ci aduna bi bi mu amé 47 ans euh, wala 49 ans jappatu mo ki exact bi la am alal lo xamné ni nii fa bëgg muy dé soxlaatu liggéey té bu ko nexé di voyager ci aduna bi kooku mu na jappalé nit mu na jappalé réewam mu na contribuer ci li ñuy def ci réew bi légui muy netali mu né par exemple mom ak jabaram. am na moment boo xam ne moom ak jabaram ci oto lañ doon fanaan benn oto buñ leen joxoon ci lañ doon fanaan guddi bu ñu xëyee dem liggéey waat parce que moom nee na kër boo ko jëndee par exemple fii luy lekk alal la maanaam donc balaa ngay jënd loo xam ne ni moom day lekk sa alal da ngay fexe am luy indi alal par exemple soo créé sa entreprise ba mu leer ne tey jii nii man sama entreprise am naa fukki nit yu may liggéeyal te chaque weer ma gañe fa un bu la neexee tey nga jënd kër parce que boo jëndee kër da ngay fay impôt boo jëndee kër da ngay fay courant fay ndox fay nangam ay charges yu bari yoo xam ne ci kër boobu loolu la ñuy wax passif maanaam loo xam ne nii moom day lekk alal mais du dugal alal télé boo ko jëndee faaw nga koy fayal parce que courant bi tax télé bi di tàkk da nga koy fay abonnement bi nga def da nga koy fay et cetera et cetera donc mu ne boo bëggee am alal ci adduna euh, bi ñu toll da ngay moytu lépp loo xam ne nii day.

gën ci am xam-xam pour gën a organiser sa dund pour gën a préparer sa avenir ak say avenir u doom mais aussi pour gën a amal njëriñu réew mi dinañ dinañ dinañ def tout pour jéem a partager le maximum biñ ci biñ ci war a def donc euh, loolu lañ amoon tey lu leen indil ci seen chaîne cette Vision TV di leen jaajëfal di leen gërëm bu baax aussi di leen ñaanal jàmm merci